وأسبلن علينا رب عافية وهب لنا القصد في الدارين يمام وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسانهين من الخيرات يمام واسلك بنا نهج رشد واكفنا سللا وكن لنا بالنوى الشيطان يمام mbokk internautes yu Amsa TV ginnaaw mi leen nuyoo ku ci ne fi nga tu nekk surtout ak sa sant békk nag nekk ci liggéey 18 safar bi tey nag ñoo ngi fii ci jumaa ji tombé nag mu nekkoon jour cérémonie officielle bi gis ngeen kàddu yi am solo yi nga xam ne sëñ Bass Abdou Khadre yëkkati na ko waaye nag dañuy jël ànd ak askan bi ñu dugg ci biir jumaa ji jullit sëñ Mountakha jiital ñu vendredi bi nga xamante ne daa yomboog li nga xamante ni mooy màggal Serigne Touba bi avant ñuy def dara dañuy ànd ak fidèles yi nga xamante ne ñooy nekk si biir ñu julli suñu pare àndandoo def reportage laaj askan bi ban yëg-yëg leen am bi leen yàlla boolee si ñi nga xam ne mu sëñ Mountakha jiite na leen ñu julli mbokk yi topp leen ni lépp li fii lay xewee si Amsa TV. jërëjëf ñoo ngi leen ñu ngi lay delloo ziar bu wér. tey nag nekkoon cérémonie officielle bi. ñu gis euh, sëñ Bass Abdou Khadre kàddu yu rafet yi nga xamante ni yëkkati na ko ci discours bi jàngat nga ci am. waaw jàngat biñ ci am mooy gën a jaajuwaat rek soññaat suñu bopp ndax képp kuy taalibe te dégg discours bi war ngaa gën a mën a góorgóorluwaat loo daan def ci bis bi bu ñëwee nga gën koo yokk te xam ni àdduna moom fi mu ne liggéeyal Sëñ Tuubaa dong nga fi des ci liggéey ndax liggéeyam bu rëy bii amaana bi mu koy def wéetoon na ci lool lottoon na ci lool waaye gis nga bi cant yi bi nga xamante ni suñ borom fay na ko ba mu des cant ak bernde rek ci la doog a woote ni bis bi bu ñëwatee na ngeen ñëw santale ma ko yàlla kon kooku ñun amuñu fayam kon lu ci waay man di jëf mooy 18 safar gi li sëñ Saliou Mbacke daan wax naan 18 safar gi kat duma ma ci yërëm kenn muy liggéeyal Serigne Touba bi ndax damaa xam fay ga kon loolu rek war na képp kuy murit nga gën a jàjjuwaat gën a góorgóorluwaat gën a delloo njukkal Serigne Touba nag. tey jii fu nekk góor yàlla jóge na fa fu nekk tamit euh, kilifa jóge na fa ngir magal bés bi ñu sant yàlla bu baax a baax nag ndax maanaam nekk ci keppaaru Serigne Touba jar na lu ne. te ñun wax dëgg yàlla sant nañ baax man mii di wax ak yow waa kër Serigne Cheikh Ndigal Sène la Serigne Mbaye a Diouf bu Serigne Cheikh Ndigal Sène mooy sama Serigne dañoo magal fale kër gol maanaam fu suñu Serigne nekk après tey ñu ñëw ngir magal Serigne Touba ci jumaa ji juliwaale ajuma ji ñaanal julit yëpp fu doomu adama nekk daal yàlla may la fa jàmm may la fa salaam. mbokk Amsa TV gis nga booba léegi ñoo ngi woon si jumaa ji instant nag daa mel ni sëñ Mountakha ba pare. moo nekk nii di dem ñuy ñaan yàlla wéral cër yi bàyyi ko fi yoon Mbàkke mu yàgg fi te ànd ak wér mu ngi noonu comme ni ngeen koy gisee ngeen koy amee ànd rek sëñ bi juli na ba pare jiite na ñi nga xamante ni taalibe ñoo ngi dem di ñibbi cortège baa ngi siy topp taalibe yaa ngi nii ñi ñaa ngi xam nag mais li jar na ko naaj bi tàng na mais jar na ko kenn du sëñ Touba kenn du Xaadima Rasuul ko internet yi lépp fii ngeen koy amee en direct sur Amsa TV gis ngeen ko macha waatu waa Touba sa kanam ñoom itam ñuy def liggéey bi am solo waaye kenn du police nationale ndax ñoo ngi assurer sécurité bi ak sapeur pompier ñoo ngi dimbali jaamu yàlla yi nga xamante ni danoo nekk ci naaj bu tàng bi boobu ba léegi di daanu ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp liggéey bi. yaay ñoo ngi leen nuyu naa la doom. ban yëg-yëg nga am bi la sëñ bi jiitee nga julli sa aaju. non kontaan rek di sant yàlla bu baax. yal na ko fi yàlla bàyyi ànd ak wér ànd ak bu bëri yéen ñi tam di liggéey topp si kii bi di yal na leen yàlla gën a yëkkati ngeen am fan bu gudd ak wér yaram. wax dëgg yàlla dañuy sant suñu Bàmba bu baax a baax aussi xëy nag dañuy gën di ko sant tax sax lu toll nii waam Mbacké xam nga loolu nekk dëkk bu ndaw daal te maanaam boo xoolee gis nga màggal gi ni mu année bu jot day gën di yokku. moom daal li ma koy ñaan yàlla na ko fi yàlla bàyyee bàyyee bàyyi ba si kanam kanam kanam kanam kanam doyul doyal moo kum nag si moom ñun fu mu nekk rek ñu ngi taxaw ñu ngi si kanamam daal ñun daal jox nañ ko suñu lépp daal dégg nga kontaan nan lool suñu xol sedd na guy nag ndax dëgg yàlla kontaan nan lépp baax na. dëkk gaal kontaan naa. mi ngi noonu mbokk internet yi xam ngeen nag Amsa TV mooy télé askan bi ba tax na lépp loo leen soxla da ngeen koy jot. gis ngeen autorité yi nga xamante ni ñëw nañ fii pour fekkee julli jumaay waaye itam gis ngeen kilifa yi nga xamante ni jógee nañ ci dëkk bu ne ñëw nañ fii pour ju fekkee jiite bi nga xamante sëñ Muntaxa moo koy def ta naaj bi tàngoon na nag waaye terewul taalibe yi jaayante nañ lépp ngir Serigne Touba waaye gis nañ liggéey bu am solo bi nga xamante ni police nationale def na ko ak sapeur pompier mi nga xamante ni moo doon dimbali jaamu yàlla yi boobu askan bi dem si biti jëlee leen cortège bi nga xamante ni moo fas yéene yëpp ki nga xamante ni mooy sëñ Muntaxa yàgg fi loolu Mbàkke ak ñi nga xamante ni ñooy autorité yi nga xamante ni dina julli ba pare fas yéene duggaat si seen bis ndax oto yi yëpp ngeen di gis ñoom ñoo ko fi gaare ñiy jugee ba Mali ñi jugee réew bu ne ñëw pour fekkee julli jumaa bi nga xamante ni fekkee nañ ko ci àjjuma bi nga xam sëñ Muntaxa moo koy julli mbokk nañ ànd ñun waa Amsa TV ñu wan leen lépp en lay doon